bismillaahi rahmaani rahiim barkeb maa ngi eh, am mbégte ñëw fii ci sëriñ Moustapha Abbas mu nekk sama wëllëre nekk ko ñépp ràññee ci dëkk bi ci lépp loo xam daf koy liggéeyal sëriñ bi mu jëm ci taalibe yi ndax bari na murid yi naan damay liggéeyal sëñ buñ tegee boolu ceeb sax dank ci ne damay liggéeyal sëñ bi waaye yow sëñ bi ngay liggéeyal pour jëm ci taalibe yi loolu ñëpp nga xam nañ ko sëñ Muntaxa wax na ko waxati ko dañoo lim fii rek yenn yi waaye liñ ciy def bari te man mi sax day agsi ci man te man li may dégg du bari ba nga ñëwee ci man ci mbiru daara ji lu ma téye la damaa mënul di dige damay def bu def jotee rek ma def comme ni ma la ko waxee woon nag damaa nekkoon ci lële loolu nag xëy na lu yàlla dogal la te noonu la gëne ndax bi ma fekkee fii Baara Ndiaye léegi rek wane na ko ndax lii olof ti wax far ñëpp a ko def mm-hmm. waaye farfarloo moo baaxul waaw farfarloo mooy nga ne sama doom rek laa jur sama doom rek laay toppatoo du ma toppatoo keneen sama yoon ci keneen sa doom moom ñëpp xam ne ni yàlla la ko jox far nga ak moom mm-hmm. waaye nag boo farfarloo ba ne keneen duma ko defal dara kooku mooy far farfarloo looloo tax wax dëgg yàlla bi ah, sëñ mën naa ñëwee wax ma mbirum daara yi leneen sax la ma fa doon wut loo wax dëgg yàlla. lu bokkut ak loolu. ma dem fa gis ko. danaa ci def. lii nag maa ngi sant yàlla même fi indi. danaa ko visité léegi. da ci gis sama loxo nu mu gën a gaawee te dinaa ko ànd ak yow ba mu sotti incha allah. loolu moom moom ñëpp. néew ji génn. sëriñ Talla ci ni mu introduire am na solo trop. sëriñ bi am nga équipe bu baax. Euh, ni Serigne Modou njaay waxee rek mm-hmm. moom la mooy li ma njëkk a wax rek li ngay def mm-hmm. ci fii ndax yaakaar naa fii mbooloo mi fi ne ñàkkul koo xam ne nii jariñoo na ci chambre de commerce wala jariñoo na ci foire bi wala ci cœur de ville wala ko fa nekk sax gis nga li ngeen yor yéen li nit ñi yor yéen a ko moom jarul sax ngeen di wax ku ñu jox loxo ñu jox la loxo jamono bi ñu toll même ku ñëw jox leen loxo ba mu fees da ngeen xam ne moom bu ngeen ko joxee yëf yi ëllëg da koy yàq bu leen ko jox loxo ah bu leen bu leen nekk ci bisub jox ma ma jox fi ngeen fi ngeen nekk tànn ngeen nekk tànn bi nag man li tax ma dugg ci géew bi gis ne. niñ bëggee doxale dëkk bi ñu ci bari dañuy ñëw parce que dañuy ñëw pour bëgg ne man lañ fi teg ngay dem di ko wane ca état ba wala ngay jël alalu nit ñi liñ war a dundee ngay dundee ko waaye musta jariñ kenn ñi nga xam ni politique pour dunde moo leen tax a jóg wax ma kenn ku ci jariñoo dara kenn koo xam ni bis buñ roccee la nga yor ki subaa sa ña nga daan dimbale ba wutul ñoom ñoo lay may baas gis ngeen ko fi loolu rek moo tax ma ne naa ci dugg jéem a soppi politique ba yéen ngeen ñeme ko xam ne ñii ngeen di topp yaakaar ne ñoom ñoo leen yor yéen leen dàq liggéey ndax kenn ku ne la nga yor yow li nga yor ministre di ci liggéey ko leen ko joxoon ñoom munuñ ko munuñ ko doxal te nit nag munta bu munta yenu paanu paanu ceeb mun ta yenu saaku ceeb nekk naan man jàng naa jàng naa jàng naa boutique noo lii dépassé naa ko pour man ko gérer waaye bëgg laa gérer lu ëpp la te boo ko joxee boutique bi mënu ko américain bi day wax ne looy mën a def da ngay wone ci commencement bi hmm. ndax Microsoft ki ëpp xaalis ci àdduna bi ci benn garage la commencé di di monter ay ordinateur ba tey mu yor ay multi multi milliards ba nga xam ne nii daanaka ku nooy rek am na ci dara fi mu ne nii ndax li ñuy wax sax am na ci ndax ci logiciel li lay jaar eh moo am na ci dara waaw ku nooy rek daanaka am na ci dara hmm. waaw mooy Bill Gates du dégg ko waaye ci garage la commencé di di seere kon nag bu leen xeeb di ngeen nekk waa njaay waaw kook sama jarbaat la ñëw bi fii xam naa xëy na ba ma koy xam dafa nekk xale trop ndax baara baayam nijaayam laa maasee baara sama waajur lañ ko tuddee waaye dañoo bokk lépp ndax moo euh, Modou May Cissé ak Alaaji Baara moo du May Cissé ak bàppay Alaaji Baara ñoo bokk ndey ak baay noonu lañ demee kon ñëw bi ma fi ñëw wane na rek tax na ma gën ko xam te danaa ko gën a xàmmee ko incha allah ndax loolu daf ci am solo ndax nit moom mën ngeen bokk ndey ak baay mais bu ngeen dul gisee rek day day réer kon nag li nga wax dégg naa ko bu baax ak euh, soxna si Kuronaata waaw macha allah Euh, li nga dégg naa ko bu baax a baax a baax a baax danaa ci taxaw taxawaay bu bu bu bu am sol dangeen ko gis comme sama xarit bi tamit baara li mu wax li ma ci wax rek <laughs> moom imam la waaw xam naa <laughs> xam naa ngoon gu ne <laughs> mu ñëw waxtaan ak sëriñ bi xam nga euh, sëriñ sëriñ li ngay def lu lu am solo la sëriñ ak sëriñ dafa soxla loolu mm-hmm. soxla day ñuy wax ne am na ko ñuy wax Norman bu masaana ñëw fekk yonent bi daf koy reetaan loo ba mu génnee àdduna yonent bi daf ko jooy ba mu yàgg muy reetaan ci xabru bi ñu ne ko looy ree mu ne Norman mi ngi ngi toog di ñuy mi ngi dund di ñuy reetaan loo génn àdduna nekk te waa ji dafa dugg ci biir rek malaaka yi taxaw ko rek mu jékki jekk gis ko nekk ne waaye yéen du ngeen def ndànk yonent baa ngeen di demagul ngeen bag ma pam ni pam <laughs> ngeen <laughs> dégg nga <laughs> waaw suñ suñu suñu waajur seex seek ak euh, man moom tamit li mu wax mhm. euh, dégg naa ko bu baax damay damay gàttal rek après ñëw mhm. di nuyu sama mbokk mi Ibrahima Ndaw barki dem daje nañ fële damay wax rek ne li ma tax a dugg ci lii juñu naa leen ko ci wàllu bëgg a dindi dara wax naa tamit ne wax na ko moom léegi daara mhm. moo tax mu dugg ci pour won leen ne leen waxuma leen won ne daara man na leen daaraa leen gën a man waaw waaw laa lay wax ndax Ah, yàlla jant baa ngi fi lépp ngi fi mënoon na ne loolu mooy seen kiimtaan wala waaye dane mojisati alquran yonent bi dane sama kiimtaan mooy alquran alquran ba tey nañ ko doon jàng lañ koy jàng ba léegi kenn mënu ci weddi dara bis bu nekk tey jii nga mën a wax jotaay bi liñ ci mën a wax ne la alxuraan nee na kon suñ jógee ñun wone ne daara moo war a sotti yépp Mm-hmm. suñ dikkee fekk sëriñ bi di defar daara mm-hmm. suñ priorité lay doon sama priorité la man sëriñ boobu mm-hmm. waaye ëllëg mairie bi tamit priorité am lay doon man de su ma maa ngi ñaan yàlla ne su ma paree réalisation bi ëpp buñ may wax ne moom laa ko def mooy ci daara daara nag boo koy defar danga defar cadre de vie ndax doo ne damay tabax daara ji rek wàcc ko fii muy taax doo ne damay daara ji wàcc ko lu yor daara ji doo ko toppatoo waaw ndax éducation rek mooy base de tout mm. bu éducation bi baaxee environnement bi dana baax <coughs> ki dana baax euh, nit ñi danañ liggéey mm. parce que ku ñu yare ci daara da nga mën liggéey liggéey bi sax mm. da nga mën a doyloo sa bopp danga mën a jariñ sa sa sa sa sa saw xeet te politique bi ñuy dinañ gré politique dara gënu ko waaw dara gënu ko yonent bi moo ne man lam yaxtam bi umuru naas fa laysa minna mhm. ku moo tax ma ne la ku politique rek daanaka voilà sëñ bii mi ngi politique mhm. parce que lii muy def dajale nit nii leen mhm. dimbale loolu mooy politique politiciens yi bis bu ñu noonu rek boobu la politique baax waaw liñ tudde polo nag du politique ay naxaate la waaw ay naxaate rek la waaw su ma yàlla dimbalee ma mën a am leneen dund ci ak sama njaboot dund ci ay nit kon du ma dugg ci ay naxaate dama ciy dugg rek pour bëgg ñu soppi politique mm. te daara man naa soppi politique te dana ko soppi incha allah ndax liñ ma wax rek bu doon campagne rek mm. jëru may campagne ndax xam naa yéen yi nekk ci Kaolack mm. études yi wane na ko def naa ko defaat ko waaye nag léegi damaa bëgg dugg pour xool xam xàmmee waaw xam-xàmmee pour ëllëg nga mën a liggéey liggéey bu rafet ndax tamit ñu ne yaay daara yaaka yaakaar la liggéeykat yi yaakaar la ëllëg nga dikk nga dikk yàqaat nga cent ans de génération encore mooy danañ ne fekk cent ans fekk cent ans say traçabilité dana di feeñ ñu ne sëriñ ba bañ ko fi dañ dañoo amoon yaakaar ci moom mu yàq bu defaree nag fekk mille ans day nekk exemple waaw tax ak yàq moom téeméeri at ñu fàtte ko waaye ak defar moom lu mu tuuti tuuti fekk junni at du yàqu kon nag li ñu jël ne dañoo bëgg ñett programme muy set suqali sàmm loolu su ma nee man mën naa ko def rek man mën naa ko def rek man rek damay wax ne defuma ko dama naan li ma tàqaloo na maa laa tafan loolu ñett yëpp dama koy ànd ak population bi ñu def ko ndax kat lii ngay liggéey ba ngay wut autorisation fay nga ci dara bi ngay jënd ciment bi ka koy jaay dana am lu mu fay luy dugg ci maire bi waaw léegi nag loolu lépp nag ana retour bi boo paree da ne waaw man lii def naa ci quarante millions minimum minimum waxuma la ci état bi de boo jëloon état bi mën nga ne dix millions ci état yi dem waaye maire bi lu bon bon am na ci un million est-ce que maire bi dana ñëw fexe defal la fii lu mat un million ci sa kanam kër boo ko defoon ci kër gu ne dëkk bi jag dëkk bi jag loolu rekk ñu manqué suqali bi tamit mooy suqali économie bi xale yi jakarta yi menuisier yi yëpp man wax naa état bi lan lay def tey xale yaa ngi jóge fii di dugg ci gaal yi dem Italie fan la ñuy liggéeyee su demee ña ngay liggéey ci tool ya ña ngay liggéey ci euh, usine euh, bois yi usine fer yi ñu jëlaat di ñu ko jaay si fii te buñ jàppale woon ñii ñu mën ko defar jaay ko Europe sax yooyu rek ñu manqué mënu ma ko def nag ci état waaye fi may tollool fii mm-hmm. danañ ko fi def incha allah danañ valoriser defaral ouvrier yi artisan yi place boo xam ne nii ku fa ñëw naw leen mm-hmm. parce que liggéey da ko liggéey ba mu rafet waaye fa nga koy liggéey ku ñëw xool ko fa danaan kii nekkati xamul dara mm-hmm. gis nga chinois yi ngay gis li ñuy defar boo demee fañ koy defare bañ ubbi la ko nga xool danga naan ndekete ñii du dara waaye dañ koo suturaal defar ko ba mu rafet ba nga xam ne nii ku soo gisee fii da nga naan ah lii rafet na waaye suñ ne waxoon fa ñuy defaree seen taabal yeeg seen yii mu ñoo leen tane li ñu am. sàmm gi nag mooy sàmm ko ba li ñu teg lépp. Mm-hmm. mu mën a ñoŋ. Mm-hmm. ndax nit boo ko tabaxalee daara. Mm-hmm. ba pare te sàmmoo daara ji. jàppale ko nam war a doxalee daara ji. ah daara ji bu yàggee mën naa am ay jafe-jafe yu bari te looloo dal sëriñu daara yi. te damaa jàpp ne li ñuy dugal 10 pour cent ci njàngam. njàngum tubaab bi buñ jëloon 10 pour cent dugal ko ci daara yi daara yi danañ jàngale alxuraan jàngale tubaab ñaar yëpp lañuy boole génne vrai type sénégalais ndax sénégalais moom bu jàngee ba ami diplôme te nekk ab jullit bu dikkee te xamul diineem day toog yoon laa faam toog fenn ñu ne ko mayel sëy mayel sëy mu ne ah mayel sëy bi wala ah. jiital mu ne ah waaw kon sénégalais bu ne soxla nga loolu kon nag sëriñ bi ñun loolu rek moo ñu ci dugal nga ñaanal ñu ñun utiwuñ kenn ne ko joxe ñu ndigal ndax ndigal foo ko joxee rek dangay ngay teggi li sëriñ Muntaxa def da ngay teggi tas sa njaboot waaye fekk fa sa fekk fa gën nga digal leen ku ne mën na ko loolu nag du ci meeting du ci ndaje kenn ku ne ña nga war a woo ci sa ci ci sirra nga def ko xam naa ne man nga ko la nga ci war a def da ko def la nga war a yëkkati sa téléphone bi def ko danga ko def ak ñeneen ak ñeneen kon nag damaa ñëwoon rek ziyaare la ñëw gën a xool lii di gërëm bu baax Baye Dia ak ah, sama euh, mbokk mi Baara Baara sama turandoo papa nga xam ne ni jàpp nañ ci ma man fii ñëw ñëpp bismillahi irrahmani irahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni kàddu yi matoon a wax yëpp bokk yi jiitu leeral nañ ko li ci des rek mooy xanaa gën a sant yàlla bu baax di la nuyu alaaj sëriñ kilifa yu baax yi nga xam ne saa su ne ñu ngi ànd ak yow ci liggéey bi mm-hmm. sëriñ Aliou Diouf mii teraanga jooy joxe mm-hmm. xelam dana daj daara ji ba lu ñuy joxe dana fi indi indil waa daara ji ci tabaski gi dafa ñëw fii ne ma alaaj sëriñ moo la indil boisson bi ak ndox mi mm-hmm. noonu la ñuy mën a tuddee suñu wëllëre muy alxaaji bàcc mbaay di nit ku baax Mouhamad Lamine Dieng nii kazalika bàyyi jamee nga xam ne lenn lu ne sonn na ko ci ñun ngir daje mi ngir daje bi am bâtiment yi bi nga xamee ne tàmbali nañ liggéey bi ci xëru bokki taalibe yi ak li fi daje woon ñu ne duñ bàyyi ba nawet wàcc waaye lu fi ne dañ ko fi def yàlla dogal ñu gas fondation yi fii xam nga bérébu ndox la bi ñu ko gasee ndox mi tàmbalee génn far mu tawaat ñu koy jaaxle lool ndax dafa sës ci ay këri jàmbur te gas nañ ko ba fondation bu xóot lool moo du njaay mii daal di woo Baye Jamee ne ko dañoo soxlaay machine yi pompe ndax dañoo bëgg génn ndox mi ci biir bax yi ñaari pompe yam ñu jox mi ngi nii raakol yaa ngi ne ba léegi pompe bañ ci pompé ba léegi génn ndox mi mm. noonu lañ ci nekkee di génn ba fondation bi jeex ba ñu arrêté liggéey bi sax pompe yi jotuñu ko woon jotuñu ko ko woon delloo mi ngi fii ci kër gi bis bu ne muy sonn ci Cheikh Thiam tamit mm-hmm. sonn na mm-hmm. ngir gise bi am mm-hmm. wax dëgg yàlla kon ñoom yéene lañ am ci man waaye am ci yow yéene mag ñi nga xam ne ñoom laa bokkal dëkk ñu di sama ay wayjur bi ñu yégee ne danga fi ñëw kenn ku ne bi nga xëyee ndax damaa bañoon ndaje mi nekk ndajem Sénégal boo wootee dix heures nit ñëw mii di moo tax ma ne leen woon dix heures ñu bari dix heures fi la leen fekk man mii sax damaa waroon a xëy liggéey yi waaye damaa toog mënu woon a dem ndax gannaaw maa woo nit ñi moom nit ñëwee fekk ñu ma fi moo tax damaa far xëy toog rek soxna yi dëkkandoo yi daayira maam jaara yi mbootaay yi fi nekk muy soxna yi minise yi borom jakarta yi ak ñu baree baree baree bari ak jëwriñu kër gi nga xam ne ñoom seeni kàddu dégg nga ko sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp woote jafe na lool waaye boo woote ñu wuy si la da ngaa war a sant yàlla da war a sant yàlla ndax ku santul nit ñi nga sant yàlla du am am benn njëriñ kon nag sant naa bu baax gërëm naa bu baax ñoom ñi mënuma leen a fay ndax su yàlla dogalee ma man a nekk fii di fi jàngale di fi jiite jumaa di fi liggéeyal sëriñ bi kenn nit mënul dara kenn nit mënul dara kon ñoom ñi ma àndal liggéey bi ñoom ñoo man kon yàlla na yàlla taxawu leen yàlla yàlla gën leen a dimbale euh, gën leen a defal defal ndam ma lay waxi tamit ne la na nga gën a rafetal sa njort mm. gën a yokk sa yaakaar mm. ndax nun fii ñu toog mm. ñaari nit ak ñett ñu fi ñëw ñaari ña dañ lay wax ne laa man day sëriñ boobu laa am yaakaar man nit ñi sax ñoom ñuy wóor na leen ñu baree bari dañoo defe ne bis bu ne ma gis la ndax léeg-léeg nit waaxu ba ñu ne boole ma ak sëriñ bi. nag ma di gis. waaw léegi bi mu yore ci dëkk bi nga jaar bokk ma ne ma leen nag. ma ne leen neexul ma delloo la sax da ngay dugg ci léeg-léeg démb. barki démb semaine bii bi nga xamee ne. Hmm. wax nañu ne da nga fee bëgg a ñëw. wallahi mbooloo mu bari ñëw nañ ne ma dañoo bëgg a jàppale sëriñ boobu mhm. dama bëgg nga boole ñoo ngi moom mhm. ñooñu ñu ngi fi mhm. bu soobee yàlla dinañ coordonné ak ay jëmee ko defee leen ñoom ñu ne ci terrain bi fas yéene ànd ak yow ci liggéey bi nga xam ne tamit ñu ngi ci kër gi te am yéene ñu ànd ak ñu ak yow ci liggéey bi soobee yàlla dina ñoom dinañu fa ñëw gën a waxtaan ak yow su ko defee maag sëñ baara mële moom ñu am na fuñ bëgg a féete waaw am na fu ñu war a féete ah, te ah, ah, noo nga ca ndax waaw nee nañ ko moom daa am bis bu mu bëgg a def boo xam ne bisub alquran lay doon bis boo xam ne dañ ciy sant yàlla waaye da ci sant yàlla waaye ñaanal la ci yàlla am ña am na yéene jàngulu ci ay junni junni kaamil wax na ma ko ak ay junni salaatul faatiha yi ak ay millions yi jawharatul kamal Euh, waaw bëgg naa nga jàpp ci ba bis boobu taxaw la ko waral i tamit daa mbokk moo xam ne daa am ci yow yéene lool tey doomi sëñ Murtada woo ma ne ma damaa bëggoon alaaji sëriñ buum ngeen jàppale ko bokki taalib yi fa nekk yépp ma ne ko ah, na na ko ñaanal mu ma xanaa da ngaa fàtte kaamil yi kokk ya ak ndékkil kokk yi waaw loolu kooku loolu la ma wax ma ne ko xam naa kon bu ci yokkee sëñ baara yi yàlla mën na ci gën a gën a def tawféex waaw na lazina laa yuminuun bil axirati xijaaban mastura loolu na loolu loolu doy na sëkk kon nag kon nag wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai waaye kañ isa na ñaan am nañ la ñaanal yàlla ci baaxuk sëriñ bi li ngay yóotu ci loxol yàlla rek la nekk ci loxol yàlla la nekk te suñ boroom waada allahu alladina amanu wa amilu salihaati la yastaxlifannahum fi l ardi kama staxlafa alladina min qablihim wala yumakkinan lahum diinahum allazi irtadaa lahum te yéen ñi nga xam ne yéen a soxla dëkk wala yubaddilannahum min baadi xawfihim amnan yaabuduuna nii bi am nan lañ soxla ñun na lañ soxla dëkk bi bi bu yàlla dogalee diine lislaam fu mu mas dem fu mu a dugg njëlbeen gi nit ñi dañuy ragal waaye saxaaba yi dañoo dañoo déggoon alquran jàng ko jàngale ko udoo ila sabili rabbika bil xikmati wal mawizati alxasana mooy tey yéen ñi nga xam ne yéenay laaj dëkk bi te ne ci bopp bi te ngi ñi ngeen gën ci siiw ay doomi daara ngeen kon tey ji Kawlax moom am na problème bu rëy bu duggee ci seeni loxo tey mooy doon modèle modèle daara wala modèle islamique mm-hmm. ah, produit daara mm-hmm. bu yoree mairie ak li ñu xam ci yow mm-hmm. nga nekk ndamal lislaam doon ndamal ndamal bisimilah sëñ Mat Cheikh dalal sama sama rak sëñ Mat Cheikh Mbacke mu ngi noonu di doore yegg si moom it di jàmbaar la lool waaw kon bu ñuy wax ba yegg si fii di daaneel kàddu yi ñu yegg waaw koy mu nga tubaarkàlla ah tubaarkàlla kon nag ñoo ko dañoo échange message léegi ma sama kër. mu ngoog waaw fekk na mu ngoog waaw kay tubaarkàlla moom sama rakk sama lépp. waaw suñ muntaxaa doyloo. waaw kon barki démb rek la jóge ndar. kër gu fa suñ muntaxaa doon tabax. moom mii loo ko joxoon moo di ko taxaw. di lépp ci man. yàlla ko yàlla gën a taxaw kon maa ngi la koy gën a dénk tamit. Mm-hmm. xëy na nun li nu tële moom mën na ko moom. Mm-hmm. waaw li nga bëgg ci pencum sëñ Bassirou moom mais mën na ko moom waaw nun ni ni ni jëwriñ Pape Seck wax léeg-léeg xool giir la sax ba nga bëgg génn waaye boo bëree yoo bokk am na ci loo xam ne doo ko mën keroog rek am na mbokk mu ma ne ko rabitatul aima wa duaat mm-hmm. ci commune bi man maa ko jiite mm-hmm. léeg-léeg nga wax kàddu sax danga leen ciy sóoraale nga naw da nga mm-hmm. yor seen kàddu jumaa ja tamit ña fa nekk di déglu te yàlla tax mm-hmm. léeg-léeg buñ la déggee ci yenn yi mm-hmm. mën naa indi ay jafe-jafe mm-hmm. sëriñ bi la fi indi tey sa lépp tamit ah am na ci loo xam ne boo sañoon li nga wax ne farma nonte ñàkk par parloo moo baaxut ndax xol moom ak yéene moom am na xol bi am na fu am na fu mu jëm yéene ji am na yéene ji am na liñ la bëgg a doon la rek mooy gën a jege askan wi waaw gën a jege askan wi askan wi bëgg nañ ne am nañ yéene jàppale la boo leen jegee rek hmm. di di dem ci béréb yi hmm. barki dem rek maa ngi ko wax mbokk mi ma ne ko sëriñ bëgg naa léeg-léeg tàkkusaan sama mu doxantu ci marché bi doxantu fa nuyu nit ñi dox sa tànk kenn ku ne nga nuyu ko nuyu ko maslaak nit ñi wàññu dara wàññu dara dëkk bi dañ ko séq ak ay nit ñoo xam ne hmm. jot jot yëf yi maanaam lu mu leen jaral bu nu ko jaralee nga jot ci yow. waaw ndax mag ñi dañuy wax ne. alal lim jaral sàcc. bu ko jaralee borom alal alal du dem. waaw kon nag yal na yàlla gën laa dimbali. yal yàlla gën laa taxaw. nun daal noo ngi nii dëkk bi lañ am. waaye dëkk bi tamit passoir gii nga xam ne dañ fee toog sëriñ bi toog loonu fi sëriñ Muntaxa doon sëñ Tubaa ñëw fi ñaari yoon wàcc ci paasoir gii kon mënatuñ fee jóge mënatuñ fee jóge fii fii nag kenn ku ne suñ see wax na fii bu la fi nawet fekke léeg-léeg yàlla xam na ne damay ne ci néeg bii mu taw ma am soxla su far faaw ba toog ñeenti waxtu ba ndox mi jot may door a génn kenn bu tawee fii kenn du génn léeg-léeg man sax ba nga xamee ne yëf yi demul doon bu ndox gu njëkk bu dalee damay daw dem tubaab ba ndox gu mujj wàccaat waaye mënatuma ko ndax fii la ma yàlla féetale mm-hmm. bi sëriñ bi bëggee ma dëkk fi mm-hmm. bërëb bii ci pàggu teefam rekk la ndax joxuñu ma ko ngir lenn ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa tax ñu jox ma ko ma fas ko yéenee def nag bërëb boo xam ne li ci jiitu mooy def ci daara alquran ndax mbokk yii ma dëkkal ci koñ bi te ñu di ma xoolee bëtub sëriñ Touba. Mm-hmm. mu bëgg seen njaboot yi